Euh, l'affaire Pape Alé mm-hmm. l'affaire Pape Alé nga xam ne fu mu toll nii mun nañu wax ne euh, secoué bu baax euh, la presse gis nañ aussi les différentes sorties yi nga xam ne am na ci mm-hmm. ñu bëri jàpp ne de c'est de l'acharnement mm-hmm. ñeneen ñuy jàpp ne carrément que journaliste bi dafa dugg si ay mbir yoo xam ne warutoon fi dugg wàllu on parle de secret d'État wàllum ay armement lu même le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko aussi gars ñu ngi koy tudd si li mbir bëri daal la ay information yoo xam ne rek am na euh, si euh, bile mbir mais loolu yëpp buñ ci weesoo est-ce que mun nañu wax ne fu mu toll nii euh, fu Sénégal toll en matière de démocratie war nañu mettre en prison benn journaliste dans l'exercice de ses fonctions waaw évidemment non mm-hmm. loolu kenn mënu ko comprendre bu ñu xuusee tuuti Sénégal benn affaire rek moo fi am mm-hmm. président bu bu bëgg toogaat mm. muy aji saaro mm. di ñuy teg Sonko feneen ak ah. Pape Alé mm. dëkk bi fees dell ak ay gendarme kenn xamul nee nañ dëkku jàmm la wante foo tourné gis gendarme renforcer aussi suñu bi sànq ngi koy wax non benn problème la zone sahélienne euh, yow ñooñu yow xaaral ba nga am fii problème <laughs> doo leen gis badu ku yàlla tere yàlla bu ñu am làmmiñ dafa waaw <laughs> làmmiñ <laughs> balaa non mais ce que je par là mooy len len ngi Sénégal ah mhm. mais ci côté boobu ci li ñuy wax nii benn yëf rek moo fi am bëgg a présenté wu tëj gémmiñu képp ku ci d'accordul mhm. faagaagal képp ko mën a jël ay pexe ba du am bàyyiwuñ kenn mm-hmm. bu ñu paree kii ci fii nañ dem ci sëriñ si mm. dinañ dem fu ne bàyyiwuñu kenn amuñu tabu man fi ma ko wekk mooy ñun senegal dafa am loo xam ne moom la ñuy ndamoo ci suñu ñàkk gu bari geek lépp mooy kàddu mm-hmm. mooy jom ak kersa ci kanamu kilifa waa yow su ma demee sax bay soppeeku nga tuumaan ma ne ma ah yow de yaa fi taxawoon wax te ngay kilifa bu mag man de su ma demee su ma nekkee sénégalais danaa toogaat ci yoon dinaa xoolaat sam bopp mhm. ndax kii ma fi ma ko waxee woon ndax may kan man fan laa teg sama bopp ak kii ma taxawal fan laa ko teg mhm. mais loolu yëpp bu fekkee ne sañ nga teg loolu ci suuf biir Sénégal yow dara tëwu la mentalement mhm. respecté woo kenn faale woo kenn parce que justice aux lois mais kaddu ci kanamu kilifa moo gën a fort justice. mais aussi la loi aussi c'est la loi. parce que gis nañ gis nañ waaye APR ñoom pour justifier euh, li nga junj nii moo nekk la ñoom il ne parle même plus de troisième euh, candidature il parle de deuxième quinquennat. loolu yëpp ay woy la gis nga neneen le conseil constitutionnel moo mun a valider wala invalider li nga xam ne moo nekk. candidature président de la république mais parolom du bible du Torah ñoom foofu lañ ko tënk. loolu yëpp du débat. ñu war leen ñëwaatee bu ñu ñëwaatee ci plus particulièrement affaire wu Pape Alé daf may rappeler temps yi ñuy jàpp gii mhm. dañ koy jàpp ba pare ñëpp foog ne lii lañ koy jàppee <laughs> avocat yi génne leneen c'est vrai te moom bu la koy nette li nga gis ne que dañu yegg si toog pendant vingt quatre heures dix sept lan lañ koy seete lan lañ mhm. koy jàppee mhm. foofu la Sénégal tollu tey parce que ñaari yëf moo mun a am rapport bi c'est un faux rapport mm-hmm. nee nañ rapport bi c'est un faux rapport mm-hmm. waaw kan moo sañ a ñëw bind ne njàpp bi tey def na lii diw def na lii ñi ngi signé mm-hmm. tel jour tel heure dugg na yépp ba pare mu nekk faux ku mën loolu en tout cas kan moo mën loolu kon xam nga ñu teg loolu ci suuf mënul dem bu dee dëgg la kon Sénégal procureur mën na dugg ci benn enquête policière ne leen bindee leen nii rapport bi mhm. dindil leen ma lii yokkal leen ma lii defal leen ma lii daal dee topp nag journaliste bi wax ne procureur bi moo wax lii mhm. moo def lii ci gendarmerie bàyyi lii ni journaux yëpp ñëw ne kii lu tax muy gën ne secret d'état mais lii du secret secret de benn nit la secret de benn clan la du secret d'état du secret défense mais affaire u Adji Sarr secret défense ñun ku ñu yàpp ñun Sénégal <laughs> suñu défense ñun Sénégal ci foofu la foofu la dépendre en tout cas man xama lan la dafa am ñoo xam ne dañ leen bëgg a téye diggante place de l'obélisque ak place l'indépendance comme 2012. Mm-hmm. mooy Adji Sarr Sonko Adji Sarr Sonko ba 2024 jot duñ ko nangu. da nga jàpp ne euh, ce dossier bi pare duñ ko pour ko nangu duñ ko bàyyi mais buñ ko bàyyee torox. Ah parce que buñ ko bàyyee de deux choses l'une buñ ko condamné ci lii ñu wax ni yëpp mais dëkk bi jaxaso. Mm-hmm. buñ ko condamné wul mooy complot bi taxaw na. Mm-hmm. mais duñ ko bàyyi. donc finalement day nekk épée de Damoclès. si bopp ñoo yëf bi ngi ci seen yëf loxo. Uh-huh. naka lañ ci génnee mooy wax ji naka lañ ci génnee dañ doon foye xam nga rek mel ne ku gumba maa moom police maa moom gendarmerie maa moom justice su ma neexee sax ne leen djihadiste lañ. Uh-huh. dugal ci armée terroriste lañ dugal ci armée jël ay nit tëj jël ay xawma lan tëj dàq liggéey def lii tëj télévision tëj tëj xam nga lu ne coupé nañ fi ay ay signaux lu ne def nañ ko fi ci affaire boobu monstre bi la pieuvre di grossir rek taxaw ne këtt ne jonn ba tey ñi ngi deux mille vingt deux mm. jeex na deux mille vingt de léegi yëf bi fu ñu jëm moom lan moo ci des mm-hmm. koñ bu ne ñu tegal la gendarmerie ak escadron ak xawma lan ak lan ak lan mais bu ñu compter ci gendarme yooyu ah kooku dañuy nax seen bopp ñooñu ay citoyen lañ dañuy ñibbi seen kër ngoon dañuy dugg ci boutique bi jël <laughs> fekk meew mi yokk <laughs> ñooñu dinañ toog faction de wante bés bu taxawee ne leen rayal leen ma kës ku ne non seulement duñ ko def mooy li ma gëm uh-huh. mais deuxièmement ku ci def te TPI mu ngi lay xaar Mm-hmm. ñoom ñëpp ñoom ñëpp dossier yaa ngi taxaw ku ci pare bëgg laqatu ji ci benn fonction Nations Unies sa dossier mi ngi lay xaar <laughs> dinañ ko étayer par des vidéos par des lépp a ngi ci loxo nit ñi chez les gens des droits de l'homme la mm-hmm. bu ñu foog ne dinañu rëcc ci lii ñu foye depuis deux mille vingt c'est ça mm. ba kañ presque deux ans maintenant. presque deux ans. Euh, madame ñu jeexale ak li nga xam ne moo nekk troisième mandat bu président de la république ak tamit euh, ban tal la mën a indi euh, si politique Sénégal. tolof tolof rek. tey jii suñu première insécurité Sénégal. Mhm. du alimentaire. Mhm. du djihadisme. Mhm. du terrorisme du dara. mooy troisième mandat. mooy suñu premier facteur d'insécurité laajal homme d'affaires yi. Hmm. homme d'affaires yi ak seen partenaires yi. Hmm. loolu mooy premier li nga xam ne moom lañ leen di laaj. pour hmm. xaar ndax dañuy ñëw Sénégal ak yëf bi fan la jëm. dafa c'est-à-dire dafa yóbbu fitu nit ñi presque maltraitance psychologique xam nu koy waxee ci wolof. li ñuy wax na dox daw ci suñu maayin xam nu koy xale yi di waxee voilà <laughs> maltraitance psychologique la parce que tey jii dañu war a liggéey ak lii ñu wax nii yëpp xale yi di wax mhm. seeni problème seeni activité suñuy développement mais loolu yëpp bu ñu bëggee indi yëpp voilà loolu yëpp boo bëggee ne da koy defar mais liggéey bu rëy la mm. liggéey bu metti la kii ñëw liggéey bu méttee méttee méttee mi ngi koy xaar donc ñu war a toog tey jii constituer des équipes jël des spécialistes jëf état de lieux xool fan la ñu jëm lan lañu am naka lañ koy defee ñu war a ñun ñëpp def suñu doole suñu xaalis suñu maayin ci tabax Sénégal boobu mhm. ñu bëgg ñu téye ci lii ñu bëgg ñu téye ci même bu demee bay sedd ba nit ñi commencé di liggéey mhm. ñu ñu dóoraat taxaw loolu nag yéen laa ci mere nag. ah ñun ñun ñun lu ñu def. yéen yéen ñi jottali. finalement nous sommes les parents pauvres <laughs> ah nous la presse. <laughs> yéen ak ñun yéen ak ñun ak politiciens yi lu ne la ñuy yàq. ah en tout cas mu toll nii moom yombul si ñun état bi bu ñuy tëj fii euh, vous ah. l'opposition euh, voilà vous nous traitez euh, voilà. mais les politiciens des fois on les assassine Et tu me diras que les journalistes, des fois aussi. Ah, ah. Norbert ah, Zongo. En tout cas, c'est hein? Ah, compliqué. Ça arrive aussi. Hein? Être dans l'espace public, euh, c'est pas très évident. compliqué au Sénégal. Gis nga euh, loolu moo lay won recul démocratique bi am Sénégal. nit ñi dañ lay tiital. mais qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a causé euh, euh, dictature bi nga xam ne de deux bords ñu ngi ko bëgg a imposer ñi nga xam ne ñooy les journalistes wala sax ñenn ci ay politiciens wala les gens de la société civile mu mel ne comme Sénégal dañoo nekk ci benn niveau boo xam ne pensée unique aussi leen fi naka imposer. parce que yëf bi dafa waroon leer. ok ñëpp tranquille le jeu n'est pas clair. le jeu n'est pas clair. ok te quelque part boo bëggee def sa liggéey. Euh, dañu tàmm par exemple xoolal bi parenage bi ñëwee xeexuñu ko xee nañ ko war a xeexee. Mm. ñëpp naan politiciens yi dañ ñu sonal de mais ba parenage bi ne këtt ne joon na di wàññi nit ñi. Mm. plateau boo dem ñu ne lu tax xeexoo ko. boo dem ñu ne lu xeexoo ko. <laughs> donc quelque part la boo ko fa tegee di def sa li nga war a def tu te poses toujours la question est-ce que li may def. am na njëriñ suba est-ce que lii yëpp du nasaxaay parce que toppatoowuma li nga xam ne tant que réglé wuñ ko leneen du mën a dem mhm. xam nga le nœud gorgien la comme ni ñu koy waxee li nga xam ne lii suñu ko reglewul wul li ñuy wax ni yëpp ça ne sert à rien c'est boobu boobu euh, maltraitance psychologique moo jàpp Sénégal ba ñëpp ngi xaar ndegam day tas ndegam te pourtant sénégalais yi jar nañu nawa parce que li ñuy def ci local yi ak li ñuy def ci législative yi ñoom def nañu seen warugar ñu bëgg ñu bañ nañu seen warugar donc bu ñu bàyyi woon dëkk bi yëf yi leer ci bopp nit ñi ñëpp toppatoo seen liggéey ku bëgg a nekk candidat nekk candidat mm. sooy pare nga pare soo bëggee def sa tour seeti ay nit wax ak ñoom ñu may la jàmm nga politicien depuis la nuit des temps day wër wax ak électeur mais même loolu léegi day am procès <laughs> même loolu léegi day am ay gendarme yuy dogale politiciens yuy wax ak militants yi bay xuloo di fa am bay ñeneen di fa am bay procès nit ñi di te campagne amul la euh, voilà dans plus d'un an campagne la ñuy def campagne nit ñi commencé di di dóorante di xaañante di dogalante di mais loolu loolu quand Sénégal boobu c'est pas normal boobu Sénégal c'est pas normal <laughs> non non Macky Sall teg nañu métit daf ñu teg métit daf ñu teg métit te kenn du ko ko baal mhm, mhm. te lenn am na moom yàlla rek moo xam li muy def boobu Sénégal mu bëgg bu ko yàlla defoon ñaanuma ko yàlla ba mu am ko ci lay gis luuba merci beaucoup li ñuy wax naan tëgg sàcc ndënd yomb na wante foo koy tëggee mooy su boobaa nag lay gis dëgg dëgg dëgg dëgg ne dugg na ci ruube comme ni koy dàmbooj ji waxee jërëjëf merci beaucoup madame Diop Blondin Ndeye Fatou je rappelle que vous êtes euh, la coordinatrice adjointe euh, du mouvement Avenir euh, Sénégal euh, bi ñu bëgg yaa nekkoon sama invité pour ce troisième numéro de la semaine waxtaan bi neexoon na amoon na solo boo amee kàddu bu mujj ñu tëj waaw di la remercier encore une fois rek uh-huh. di massawu sénégalais yi ci liñ leen di teg te ñun ñu bokk ci uh-huh. tout cas ñun ñi ñuy wax politiciens yi <laughs> euh, di leen wax ne que euh, vraiment loolu yëpp mënoon na ñàkk wax dëgg yàlla dëkk bi ni mu nekkee ak li mu am ak perspective yi ñuy xaar mm-hmm. euh, loolu yëpp mënoon naa ñàkk Sénégal gën fe neex mm-hmm. vraiment nag di nuyu bu baax nag suñu jigéen yu yaa ngi yooyu nekk mbuur uh-huh. <laughs> waa tefes waa bay dëkk waa coose ak ñeneen ak ñeneen di nuyu waa avenir waa Grand Yoff waa Yoff <laughs> bala ñu may mere euh, vraiment di le remercier bu baax njàpp mm. ci invitation bi <laughs> merci c'est toujours un plaisir de vous recevoir vous êtes euh, voilà une grande dame <laughs> voilà de la politique euh, sénégalaise merci à mm. internautes yi nga xam ne ñoo toppoon du ñu suivre suñu différentes plateformes yi on se donne rendez-vous demain inchallah pour le dernier numéro de la semaine d'ici là prenez soin de vous et restez en compagnie de nos programmes merci